war na laa intéressé nga taxaw xoolaat fan lañ jëm. waaw réew mi de fi mu toll liñ ci liñ ci gis. li ñu gis ci réew mi. waaw fi mu toll. waaw mooy ay gendarme yoo xam ni. dañuy xëy ñu ne kenn gisu leen. ñu ne kenn ki dee na. waaw Fulbert Sambou noonu la dee. waaw dañuy gis ñoo xam ni. lu bëri ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi ñu ngi leen di jàpp di def ci kaso bi. dama lay laaj benn question ay député député yoo xam ne dañu am euh, seen immunité parlementaire. ñu jàpp leen def leen ci biir kaso bi. Euh, man damaa def noonu la ñu wax lañ jàpp. am politicien la. damay laaj. mais ki ñu non mais. non damay laaj ndax politicien la am journaliste la. journaliste la parce que kenn déggu ko ci benn parti politique non euh, non non kenn déggu ko ci kenn gis ko benn. kon bu leen wax ne bu leen wax ne ay politiciens lañ jàpp. voilà voilà. non bu leen wax politicien lañ jàpp. non yow yaa ma wax ko non non yow yaa ma ne politiciens yi opposants yi ñu jàpp. bari na ci buñ ko non ñii wax dañuy ñii dañuy wax ne journaliste la ñii ne opposant la mais li ñu ko jàppee est-ce que est-ce que jaar na yoon xam nga liberté am na liberté provisoire parce que charte bi moo ko joxe mu demande liberté provisoire. ñu jox ko ko ñiy weddi ñiy weddi fii yëpp bu ñu leen jàppee bu ñu leen tuumalaa ñuy taxaw di weddi bu ñu leen jàppee ba ñu xam ne ne yoon dal na seen kaw dañuy dañuy laaj seeni droit ñu jox leen ko cela veut dire justice bi bi leen di téye loi bi mu appliqué moom la leen di appliqué bu leen joxee liberté provisoire suñuy texte yu ñu moomal suñu bopp fi réew mi toll wax naa la ko de. waaw oh, non dama leen réew mi toll. mooy par exemple ñaari député yoo xam ni ñi ngi nekk biir assemblée nationale am seen immunité parlementaire ñu jàpp leen tëj ci kaso bi sans ñu lever seen immunité parlementaire eh, Pape yow wax ne am nañu immunité parlementaire ci loolu. assemblée nationale dafa ne dañoo appliquer règlement assemblée nationale flagrant délit. mais non non c'est-à-dire. xam nga non dama lay laaj rek. Pape non non yow yow mais lan ngay lan ngay bëgg wax. flagrant délit lan ngay non dama la non dama la posé question xam fàcce la fan nga teg ne li fa am du flagrant délit sénégalais yëpp gis ko en même temps ci télé bi adduna bi yëpp gis ko en même temps ci télé bi. mu amee biir assemblée nationale. non dama la ne flagrant non dama la ne président assemblée nationale moo ne nañu appliquer règlement intérieur u assemblée nationale. cela veut dire flagrant délit boo ju ku ko dóor ngay député ak lépp ci biir hémicycle xam nga lan mooy hémicycle hémicycle ak am importance. de ministre bu demee assemblée ñun ñamewuñu teg suñu tànk ci hémicycle bi foofu askan wi la loolu bërëbu askan wi la. loo fa def ci lu baax askan wi nga ko defal mbaa askan wi moo ko def loo fa def li ci bon askan bi maa ko defal mbaa ci askan bi nga ko def gis nga kooku ñooñu dóor ci bërëb bu nga xam ne moom mooy symboliser askan bi kun amul màndaawu askan bi doo député amoo droit taxaw fa nga ñëw di fa xeex askan bi nga attaqué ñëpp gis ko muy debaat ñëpp ñaawlu ko ci àdduna bi yëpp ñu ñuy ree ñun ñi di ko teg mais gis ngeen lu am Sénégal lii de moo faraw loolu xaw kenn xamul biir assemblée que amul lu ñuy reetaane Sénégal dañ koy gis partout dans le monde non parce ah. que wane ko Sénégal alors que bi bu déroulé normalement assemblée Sénégal bu doon déroulé normalement ñu ngi doon voté kenn mësuñu wane ci àdduna bi ba ñu defee li ñu warul def moo tax ñu wane ñu bañ defee lu nga xam ne dañuy ñaawal suñu askan moo tax ñu wane ci askan wi yëpp ci àdduna bi yëpp non loolu boo bëggee ne yow da ngaa wax ne loolu ñooñu waruñu teg seen loxo amuñu du euh, askan wi bu ñu bu ñu ñëwee tey de ñooñu ñu dem tontu ji fi kàddu nekk benn waruñu leen fa yóbbu dama bëgg nga prononcé wu fi pipaap ne ñooñu yóbbu waruñu leen fa yóbbu. mais loolu laa bëgg a wax. waaw xam nga lan laa bëgg a wax. waaw dama bëgg a wax ne ñoom li ñu def. waaw kenn rafetlu ko. waaye en tant que député député. waaw sans ñu lever sa immunité parlementaire. yow ñu def la ci kaso bi. loolu kenn mënu ko rafet non dañ la ne immunité parlementaire député duñ ko dañ duñ dañ koy dindi bu dul flagrant délit. flagrant délit bi ni nga ko àttee flagrant délit moom moo yomb. Euh, non lan moo lan nga ko li nga ko bëgg a li ko bëgg a expliquer flagrant moo yomb. xam nga lan mooy flagrant délit. mooy ba nga koy def ñëpp dafa dafa dafa fe dafa tegu ci bët. mooy flagrant délit ni muy signifié woo c'est pas incontestable. xam nañu ban moment la. mais provocation bi nag provocation bi nag. ki nga xam ne da nga wax ci ci ci ci sëriñam nag. provocation ci sëriñam. waaw ki nga xam ne danga taxaw wax ci sëriñam loo xam ni rafetluwu ko ñaaw lu na ko. mais loolu loolu fan nga koy dugal loolu. day dóor. non waxuma day dama ne. non non non Pape déglu rek ma wax la est-ce que ngay dóor. li ñu bokk ñun ñun ñu bokk ñun ñëpp ñu bokk sëriñ ku nekk da ngay am sa sëriñ fii Sénégal tu as la liberté ne kii mooy suma sëriñ. am nga tamit devoir respecte sëriñu keneen loolu am loolu la ñuy fonctionner loolu lay Sénégal fonctionner ku ko deful ñu ŋàññi la baa ñu rappeler la à l'ordre mais assemblée nationale lañuy ñuy voté yi nga xam ne ku tooñ dañ lay yóbbu ci nguur moom doom moo am droit dal ci kaw nit député yi loolu ñoom ñoo ko voté muy ñoom ak ñi leen jiite mooy warul kenn warul régler problème boppam ñu ñëw jàpp député ki ñu woo tamit du député yow nga ne non war ñu jàpp député mais ñu jëpp jël député nga xam ne mandat la am. mais ñëw assemblée nationale mais loolu am na fa. te eggul fii. egg am na fa ci maam jaara Fam te eggul fii. am na fa ci jamono ñoom Doudou Wade ak Aliou Sow te eggul fii. am na fa ci Ousmane Sonko ak euh, Mbéri Sylla te eggul fii. kan moo leen lan moo fa am. mais xeex. dóor non Pape eggul fii. Pape kii jigéen lañ dóor. dañ ko dóor mu daan ñeneen keneen ñëw wat ko dañ ko sattoo dañ ko préparé pap dañoo jël décision ñoom dañoo jël décision yow yaa ngi jox valeur yi lu tax dangaa joxe lu tax cause yi ka tax ñu jëm décider ci biti hors de l' assemblée ne bu ñu demee tey assemblée kooku bu ñu ko fa fekkee dañ ko fay dóor loolu moo am. monsieur ministre. non dama lay ne loolu moo am amul. mais kii bu mais mais est ce que. xam nga non mais est-ce que xam nga. Ah, xam nga Ami Ndiaye su newul woon. xam kenn ku dóor. non kay moo la mais monsieur mais mais jéggalu amoon na est-ce que xam nga auparavant. wax nañu ba affaire yi féete boor. waaw Ami Ndiaye bu jéggu bu ñëwultul woon. Ah. Euh, Mata euh, Mata euh, Masata Samb taxaw ci pipitre bi wax mu ne ko maa tey. non c'est pas comme mais loolu ñëpp a koy dégg maa tey. déglul ma Pape lan la wax lan la Ami Ndiaye ñu ko wax Ami Ndiaye lan la wax. non oh, Ami Ndiaye. non lan la Ami Ndiaye wax. non ci sëriñam la wax. non lan la wax ci sëriñ bi. du nee nga ne maa tey la wax. mooy am na muu yu muy utiliser yan muu la wax dafa ne. bàyyi leen Macky Sall président de la république suñu leader bi ngeen di xas bu dul loolu ngeen fi waxatee ñu xas seen sëriñ kàddu yooyu Sénégal am na ñu nga xam ne ñu mu leen di offensé mais Macky Sall tamit dignité bi ko yàlla jox. ak ay rawaan yu mu wax. ni sëñ Moustapha Sy waxoon na fi ay ay ay ay rawaanu Macky ay Sall xalifa euh, Sall bu demee kaso dinaa dem kaso. yooyu yooyu mu rappelé. waaw wane ni par exemple seen sëriñ nangam nangam. non xam nga loolu yëpp am nañu condam xam nga am nañu ko condamné. waaw waaw publiquement ñoom leaderu benn bokk leaderu yow yi ne nañ ko. nee nga Omar Youm sax am na ñëw na. pour jàmm wut jàmm ñoom excusé wu nañ. waaw déglul. Eh, xam nga loolu jàmm am na. Mhm. jàmm am na dañ lay rusé loolu xam nañ ne génn nañu wax kenn dalu seen kaw kenn dalu seen kaw. Mhm. bu ñu waxoon wax kii wax na nañu wax mais décidé na ñëw da ngay dóor nga ne kii wax na jigéen la dama koy dóor nga justifier ko pap ah man valeur yi ma am ni ma naw woo jigéen ku dóor jigéen bu ma ko fekkee bu ma ko mënul protéger bu ko nguur gi protéger. ak lu ma bokk ak affaire bi ak lu mu metti parce que jàpp nañu ko ma àndal dinaa ne li mu def rafetul waru ko def. man lool laa gëm. d'accord yow nag boo gëmee leneen. non non non man non. non boo gëmee leneen. non gëmuma leneen. li nga wax ci jigéen mënu ma wax. lu ko kon nag ma doon pousser rek ba ma egg ci loolu non ministre. cër boo am ci jigéen ñun aussi am nañ ko ci jigéen yërmande boo am ci jigéen am nañ ko moom laa gëm waaw non loolu moo am mais xam nga lan laa dàq moom la Sénégal yëpp am ah, moo tax nag moo tax Sénégal yëpp ak adduna bi yëpp offusqué wul ci li ñuy def waaw ñu ne tey dañuy appliquer waaw le règlement intérieur xam nga dafa am terme boobu bàyyi ma wax la dafa am terme bu boobu lu muy signifier président appliquer règlement intérieur ñun bu ñu demee assemblée dañuy dégg député yi de temps en ñu ne président appliquer règlement intérieur yi parce que le président dafa am personnalité ak responsabilité bu mu am appliquer règlement intérieur daf koy appliquer bu demee ba affaire yi bloqué nga xam ne dafa sës sinon dañuy bàyyi liberté yi tant que yàqul affaire bi dañ koy après bu ñu nee appliquer règlement intérieur cela veut am na période yu bëri dañuy bàyyi règlement intérieur et dans l' intérêt de tout le monde day fekk ne opposition bi ñoom ñoo yuuxu ñeneen ñi ki mbaa pouvoir bi ñuy day ñëw de temps en temps mu ne leen bu ngeen arrêté wul je vais appliquer règlement intérieur cela veut xam nañu dignité responsable parce que dafa amee limite. mais mais monsieur le ministre li nga wax non li nga wax nii. est-ce que mënuñu ko wax mënoon wax ñii. ne leen lii ngeen def. bu ngeen ko defatee prochaine fois ñu appliquer euh, règlement intérieur bi. Euh, Pape. mais dama ni est-ce que jàppuloo ni. kon da jàpp ne yow affaire bi c'est pas suffisamment grave pour que ñu appliquer règlement intérieur dama la ne tant ñu ngi koy mën a mat ñu ngi koy mën a gérer da kii kàjj ko am na ñu ne dafa amoon kii dafa nekkoon dafa ëmboon nga xam ne lu muy luy dal jigéen la loolu yëpp bokk na ci tax ñu war a ormal jigéen parce que moom moom mu ñu jur loolu yëpp nga ne affaire bi amul règle amul agul niveau de euh, euh, gravité bu nga xam ne war nañu appliquer règlement intérieur monsieur le ministre mais est xam nga lii dina topp aussi mais non mais mais est-ce que xam nga lii aussi lii aussi dina topp seen nguur ci ay lever immunité parlementaire ci nu mu leen neexee ci jàpp ay député sans immunité parlementaire lever ñu lever ko cest à lii dina leen topp ci lu bari xam nga est-ce que xam nga lii dina leen topp ci lu bari Pape d'accord ma ak yow xam nga lu tax Pape d'accord ma ak xam nga euh, li ñuy def yëpp loi bi la ñuy appliquer non xam nga xam nga xam nga wéeru ci loi bi loolu yomb na de monsieur le ah, ministre ah, man de ci loi bu sama réew laay réew mais wéeru ci loi bi aussi yomb na non man ci sa wéeru ci loi laay nga wax defe naa il faut ñu arrêter loi sunu sunu charte réew nga xam ne ñoo ko defal suñu bopp wootee député yi vote ko bu ñu nee duñ ci wéeru mbaa wéeru ci lu yomb la cela veut dire kon kon yow da ngaa jàpp ñu ñu bañ a war a eh, ku ku xam donc kon dafa yomb de kon lapsus la damay jàpp ne lapsus la ah. mais ñun ci loi bi loolu yombul ak a jafe bañ ko def bras armé. non mucc loi kenn mu bañ ko def bras armé. non non mucc bañ koo xeexee. non xam nga bu yow li ngay wax contradiction bi benn la pap bu ñu lever immunité parlementaire nga ne waruñu lever immunité parlementaire bu ñu appliqué flagrant délit parce que flagrant délit bu sénégalais yépp gis la fekkee nga ne noo dañoo waroon appliqué dañoo waroon lever immunité parlementaire am balaa ñoo dal ci kawam je comprends pas Pape da ngay nangu soit ñu appli li ci li ñu ciy génne du appréciation yow li nga gëm li nga man dama gëm mooy dans toute rigueur dans tout sa rigueur ak ku nga mënti doon bu fekkee ne egg na période bu nga xam ne dañoo war appliquer loi bi ñu appliquer parce que juge yi ñoom seen bopp dañoo xam li ñuy wax indulgence bu ñuy juger sax dañ leen ne indulgence dañ ko boole ci ñëw parce que masla dafa bokk ci lii groupe li muy démarché je pense que lii am dañ ko war a fexe nan lañ koy dépassé fexe bu bu mu amaat cela veut dire tey te bu mu bañ a amaat mooy nañu appliquer laa loi monsieur le ministre c'est-à-dire yow yow yow li nga ni nga ko attee. Uh-huh. mais li nga ko attee dafa. non attee wu dama ne dañu dañu ko yóbbu fi ñuy attee ni. dama ne dañ ko yóbbu fi ñuy attee fi ñuy attee ñi nga xam ne ñun ñoo jàpp ne ñii ñoo war a atte bu ñaawteef amee te nee naa la lii kenn mënul wax ne du ñaaw ñaawteef bu ñaawteef amee ñi koy atte ni leen fa yóbbu ñu wax. ok alors monsieur le ministre dafa am loo junj léegi ci sa biir wax te loolu dama bëgguñu taxaw ci tuuti parce que da nga ni motion de censure bi. bu jàllul it président bu bu jàllul président de la république am na sañ-sañ. non dans des systèmes démocratiques mais fii fii ak deux ans mënu ko. voilà kon loolu leer na. Ah, waaw parce que li ma bëggoon li ma bëggoon li dama ne fii ak deux ans mënu ko li mënu ko. bu fekkee ne pour appliquer règlement intérieur assemblée mais constitution bi bu fekkoon ne de affaire boobu dafay dem ba bloqué assemblée bi. Mhm. président c'est le garant. c'est le grand du fonctionnement des. d'accord des institutions alors monsieur le ministre. Ah. bu ñu nekkee motion de censure bi ci laa bëgg taxaw si. parce que tey. Ah, bu ñu nekkee ci réew naa ci faram fàcce nga bañ. léegi kon def nga tour waxee ko nu mu la neexee rek. <laughs> damay laaj monsieur le ministre dama ne. bu ñu nekkee ci réew moo xam ne liberté yi am na problème. c'est-à-dire euh, politique bi. am na am na ñu ngi ci ay ëllëgu politique yu doy waar. yoo xam ne kenn xamul lan la. yu lëndëm euh, ñu nekk ci ja ay du dëkk boo xam ne dund bi metti na cher na est-ce que ñi nga xam ne ñoo taxaw ngir këpp gouvernement bu amuñu ci amuñu amuñu amuñu amuñu dëgg. ah bon. est-ce que jàppaloo ne amuñu amuñu dëgg. Ah, xam nga. ñu liberté yi wax naa la léegi ay gendarme yoo xam ne kenn mësu ko dégg lii ñu dégg fii ñu dégg nii li ñu dégg jamono ji euh, kenn mësu ko dégg. Euh, non wax ngaa wax daal nguur waaw. xam nga lan mooy daaneel nguur. non gouvernement laay wax man waxuma coup d'état. non daaneel nguur laa la man man waaw man nag. gouvernement nguur la quand même ah, d'accord mais man man li ma wax. dama ne dama lay ne daaneel nguur. même muy dafa amee charte. ok ak nguur bu mu doon. Mhm. bu dee daaneel président la. askan wi la. mooy fal mooy fol folli. Ah, gouvernement nag. gouvernement premier ministre ak gouvernement ñaar ñoo ko mën a daaneel. assemblée nationale. ak président de la république. waaw. de la république dafa mais argument yi ñu teg toujours ma wax la ko mais bugguloo si wax ci wax la président amul amul dara dañ ko jox heure bu bëggee fal mu fal bu bëggee falli mu folli assemblée askan waa fa nekk ñëpp normalement dans un système démocratique lu fi am ci réew mi ak nu mu mënti tëddoo bu fekkee ci réew mi la bokk war nañ fa mën a am représentation ñu ne foofu majorité moo koy diriger ku ëpp majorité ku ëpp doole bu ñuy décider bu ñu bootee dara loolu lañuy ñuy kooku pour mu daaneel gouvernement dañuy am majorité tey yi nee nañu dañoo bëgg daaneel gouvernement bi. waaw ah. bu ñu nañu liggéey suba am majorité mais nee naa la Benno Bokk Yaakaar bi coalition bu fa ëpp doole nga xam ni doole bi mu am tey ci assemblée kenn mënu koo gañe kenn gañe gu ko. assemblée bi mu commencé ba léegi kenn gañeeku ko moo nekk paix àndu ci loolu rek doy na te nee naa ñoom ñi nga xam ne dañ doon ànd di xeex di xeex ak Benno Bokk Yaakaar mu leen di gañe monsieur le ministre wax nga. non déglu rek non la répétition est pédagogique ñoom ñi doon ànd Benno Bokk di xeex bennoo Bokk Yaakaar di leen gañe tey ànduñu ah defe naa même ci football. am na lu muy def. Ah, liberté yi ñuy. non non bàyyi xam nga non non non. askan wi jafe-jafe yi ñuy. non non tey tey wàññi nañu ko tey la gën a tey li wàññi nañu ko lu ñu ko ci def tey la gën a cher. tey ki ñu jox liberté provisoire liberté ay restriction la appliqué nañu loi bi am appliqué wuñ ko. la loi sénégalaise la ñu appliqué am appliqué wuñ ko non loi doo wax ne bu dalee sa kaw appliqué wuñu loi bu dalul sa kaw bu la bu la defee lu faveur. parce que liberté provisoire faveur la ñu jox la ko nga ne noo appliqué nañ ko non pap fii ñun ñëpp ay benn lañu Sénégalais yëpp ay benn lañu ñun ñëpp benn lañu. mais monsieur le ministre. non ñun ñëpp benn lañu. d'accord devant le Séné devant le devant la loi gis nga fii amul kumba am ndey ak kumba amul ndey. mais gendarme yi ñu xëy kenn gisu leen nag. non gendarme yow ñu ngi leen di set ñu ngi enquête xam nga nee nga fi sànq sa waa ji ba mu bañ ko nee yow. sa dossier am na lu ñu la jiiñ dafa ne mu ngi devant la loi kenn du ci wax nga bëgg man jëwriñ ju Sénégal sur une question ma wax ci man am naa ci sama idée mais duma ko wax te li ngeen di wax xam nga wax avant affaire bi mu ñëw di yuuxu rek ñiy yuuxu ñiy yuuxu bëgguñu weer xam nga boo demee da euh, njagam rek wax na ko boo demee ci ci teen ci pëndu teen bi coow li fa bëri ñi amul baag la ñi am lu ñu ragal la ñoo ciy wax di bëgg orienté mm-hmm. d' accord alors monsieur le ministre dund gi. waaw metti na ci askan bi.